dem ci mbir mi ba jeex ci tàkk rek may nuyu leader yi fi nekk yépp ku gis lii ku gis plateau bi ñi fi nekk ñépp ngeen may ma ma wax leen ni ku gis Cheikh Tidiane wala ma ne ku gis sëñ Moustapha Sy gis ci wetam honorable mon jeune frère, un de mes rares dans la classe politique Déthié Fall gis suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mansour Sy gis nag suñu doyen bu exceptionnel exceptionnel efficace def liggéey bu extraordinaire ci coalition bi te nit ñi xamuñu ko peut-être muy suñu doyen Habib si gis docteur Cheikh Tidiane Dièye bi avenir bi ñu bëgg gis euh, suñu shérif Ahmed Aydara waaye defe na Alaaji Malick Gakou ak ñi fi nekkul ñi fi teewul parce que newuñu fi sama yaay ji Ayda Mbodj ñu ngi koy ñaan mu yokk ñaan yi ndax actuellement ma nga Màkka di umra de Cheikh Tidiane Dièye Moustapha Girassi Djibril Euh, mon frère Thiam Babacar Diop defe naa fàttewuma kenn waaye su ma fàttee nañu comprendre ku gis lii yëpp daje nga xam ni lii du coalition bu ndaw ku gis lii lépp daje nga xam ni ci qualité ak ci quantité nous avons ici la plus grande coalition politique du Sénégal waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñun bu ñu fàtte lan mooy suñu jubluwaay élection locale benn étape la rek ci fi ñu bëgg jëm nañu fàttaliku ni d'abord suñu combat dafa yaatu combat africain la panafricain la Afrique dafa tàyyi dafa sonn ci nekk mbalitu àdduna bi les Africains en ont d'être à la traîne de l'humanité, les Africains ont décidé de prendre leur destin en main. Et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des consciences, l'éveil des consciences. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe en Guinée et vous voyez ce qui se passe ici au Sénégal. kon bu leen fàtte loolu mukk li ñuy xeex ci élection locale benn étape la donte am na solo bu ñu fàtte ni fi ñu bëgg a jëm wala li ñu fi ñu war a yegg pour soppi réew mi soppi Afrique ëpp na loolu moo tax ñuy wowaat ñëpp ci mobilisation autour de la coalition dañoo génn ci investiture ñëpp xam nañu investiture lu métti la bëri na ñoo xam ne mer nañu parce que la ñu foogoon wala la ñu bëggoon amuñu ko waaye bu ñu fàtte ni àdduna bi wala Sénégal du taxaw keroog le 23 janvier 2022 lay suñu mbëbët ci Sénégal ak lañuy xeex du jeex keroog le 23 janvier 2022 kon ñi ngi woo ñëpp ñu dellu si daa di mobiliser waat autour de l' essentiel te l' mooy coalition bi ñu am ñun ñëpp xam nañu liy soppi Sénégal du génn ci lii kon yéen ñi teew fii loolu bu leen ko réeree mbir 2024 la ñu jëm te gannaaw 2024 ñu boole suñu doole boole suñu xam-xam daa di soppi réew mi yeewi askan wi ba yaakaar gi senegaal yàgg sénégalais yàgg am xaar gi ñu yàgg xaar lu weesu 60 ans loolu lépp firndewu ci ni ñuy yoree réew mi est-ce que pare ngeen pour loolu may wax nag tamit may wax tamit ne élection la ñu jëm dégg naa ay nit di jël ay initiative ne dañoo bëgg mbooleem ñi séq mbir mi daa di signer benn charte pour la non violence man de damay wax man Ousmane Sonko du ma signer benn charte pour la non violence rafetlu naa rafetlu naa rafetlu naa seen yéene torop waaye nag gis nga violence kenn ku ne su defee li mu war a def kenn ku ne yem fi nga war a yem violence du am te nag bu ñu nangu parce que am na la xam ne dafa commencé ni roog naa fekk ngeen baal ma ci wax ji parce que violence yépp ci benn côté la jóge soo gis opposition attaqué toujours les mêmes ñooy attaqué ba pare làqatu ci gannaaw force de défense et de sécurité yi su kenn ku ne yemee fa nga war a yem jàmm dina ne ñooy lu ko may nag li ma leen di wax yàlla santaanewul kenn nga dem joxe sa bopp ñu lay duma ku leen xosit soxleen ko man man maa ko wax dama ne gis nga Sénégal Sénégal dafa am ay nit yoo xam ne heureusement bariwuñu ñun mën nañu wër ci télé yëpp di ñu saaga loolu takk ci der day romb mën nañu fay ay nit ñuy bind bis bu ne di wax lu ne si ñun day romb waaye yenu ay yat yenu ay paaka ñëw de dañ ñuy dóor duñ ko nangul kenn dama ne dama ne xam ngeen ni ñii tolloo ñoom duñu sax seen moroom moo tax ma ne leen ku leen xosi doon leen ko may jéeri ku leen matt ku leen matt bu di leen bëñi loolu rek mooy solution bi parce que suñ ko seqoon ak ab nit sax ñu wax waaye xam nañ ñu ko seqal ñu ñu doon kon fi may daanelee nag mooy nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats ci Sénégal ndax nag ñoo ngi présenté candidats yi waaye fàtte nañu nag ni candidat ngi fii candidat fan kon dama bëgg ngeen ànd ak man wax ni dama bëgg ngeen wax ndax enjeu bu rëy rëy la xam ngeen ni waa ji fi mu ne nii looloo ko tere noyyi ndax labbal yiñ ko fa labbali 2019 ba léegi digéré wu ko moo tax saa su ne ñu ne léegi lu xew lu bees mooy gis ngeen tey nee nañu siñee nañu convention ak américain pour tabax ay pont Casamance lu baax la soxla nañ ko nee nañu tey taxaw nañu les points nano crédit baax na nee naa nag sama mbokk Casamance yi fu ñu ne alhamdulilah war nañu ne nag jërëjëf Ousmane Sonko. ndax dinañ leen dinañ leen xëppal lu ne ci jamono ji ñu toll waaye le ca guddi ñii bu ñu amee pour cent. ngeen xam ni du ma Ousmane Sonko bu soobee yàlla kon nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats à travers le Sénégal dakaar nag ñëpp xam nañ ni dakaar mooy élection locale man bokk naa ci ñu taxaw samp lépp lu ñu mënoon samp pour que Barthélémy Diaz nekk maire Ndakaaru xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax duma ci guddal de ndax duma ko tagg ndax dama xam jikkoom tuuti boo ko taggee rek mu sax yi moo tax duma ci wax lu bari waaye li tax ma li tax ñu sonn ci mooy benn benn Barthélemy Dias du koo xam ne dangay ànd ak moom xare jot nga wëlbatiku doo ko gis te man nag loolu laa gëm ñaareel bi foofu lay daanele Barthélemy Dias kenn du ko jox mairie mu jaay ko Macky Sall dina ko jël en tant qu'opposant dina ko yor en tant qu'opposant ba 2024 ñu yendu waa ji ba biir bi weextaal ñu ne ko rëpp mu yor ko mu continuer ko yor en tant mu continuer ko yor en tant que ku bokk ak ñiy defar réew mi soppi réew mi moo tax ma ne Barthélémy Diaz maire de Dakar asalaamaaleykum